ki wane mooy ndigal bi nga xam ne moom la ñu président de la république euh, jox euh, sant ko premier ministre ñu ànd ko aussi ak sunu naataango ministre de l'eau et de mooy fu jafe-jafe am rek nañ jug taxaw teg fa sunu tànk wax ak askan wi jéem a ut saafara ci jafe-jafe bi tey loolu moo fi waral sunu teewaay waaye balaa ñu fiy ñëw sunuy ndaw muy service yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk sunu sunu kilifteef euh, ñoom dañ leen yabal depuis bi jafe-jafe bi amee mooy fii nga xam ne ni mooy bassin wu Pofdy Euh, dafa amoon fissure bu amoon ci digue bi nga xam ne nii fi fissure bi amoon falaa taxaw nii pour wane ne réparé nañ ko ba pare te yéen ñi aussi mun ngeen ko seede donc bi ñu ñëwee gis nañ ne ñoom jëloon nañu déjà le problème à le corps ndax fekk nañ fi le directeur des travaux euh, bu bu ONAS fekk fi aussi autorité administrative yi muy gouverneur préfet sous préfet ànd ko aussi ak euh, entreprise bi nga xam ne moo nekk di liggéey ci cadre projet bi mooy li mu juróon si jafe-jafe mooy am na ndox mu génnoon dugg ci ay tool mais aussi daggoon na tali bi waaye ñun ñëpp gis nañ ne tali bi mu daggoon rétabli nañ ko ba ñu gis nañ ne ubbiwaat nañ ko à la à la circulation donc pour wane rek ne li président sàkku ci ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ministres yi doon ay jëriñam mais aussi sàkku ko ci service yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nekk ci sunu kilifteef mooy fu jafe-jafe am rek nañu jóg ci saase jóg taxaw fexe ba saafara mun ci am ay accident nag day arrivé ndax lii xew nii mun nañ ko jël ci cadre accident lañ ko mën a teg ndax bassin yi ren yàlla dogal na euh, dispositif bi ñu fi teg dimbale nañu nawet bi yëpp li muy taw di bëri bëri bëri bëri bëri tey jotuñu woon am benn débordement comme ni ñu ko xamee woon ci at yi weesu donc lii nag benn accident la bu am mooy liñ fi tegoon comme te pompe ci doole bi mu amoon créé ay fissures te ndox moom bu xasee am yoon rek après yoon boobu day gën a yaatu bu ko defee li jóge ci bassin bi yëpp di di yàkkaliku te yëpp bi ñu fi ñëwee aussi xamal nañu ne ñu le maire te adjoint am taxawal ku toogal ko fii de Touba ñëw na fi aussi tey ci suba si moom aussi bi mu ñëwee gis na ne liggéey bi lañ ci doon xaar yëpp def nañ ko macha allah. impacté yi dina am recensement boo xam ne dinañ ko def ndax am na daaw jafe-jafe bu amoon amoon na aussi recensement ren ji aussi dinañ ci gën a taxaw ndax directeur des travaux aussi dalal na ci suñu xel ci ne ñoom ONAS dinañ fexe jël disposition yi incha allah ñun aussi dinañ leen ci soññ. ñu fexe ba ñii ñu recensé ren ak ñi nga xam ne sax ñoo fi nekkoon ñu mun leen identifier xam lan moo jëm ci ñoom ci wàllu ndàmpaay ñu xool aussi nu ñu leen di gunge mais ñoom ñu comprendre rek ne lii am moom situation bu exceptionnel la boo xam ne tey c'est un accident lañ ko mën a tuddee lu xew la loo xam ne du ci ñàkk peut-être préparer mbir yi wala ñàkk def liggéey bi mais dafa am benn situation bu amoon ci digue bi moo am benn fissure moo jur jafe-jafe yi te loolu réparé nañ ko te comme ni ñu koy xamee mooy travaux yi dafa àggagul président président Touba. daf ko jox cër bu mag am lu yëkk lu am solo ci koom-koom loo xam ne yëkkati na ko dugal ko fi jëm ci wàllu assainissement mu toll ci enveloppe bu ëpp 45 milliards waaye mu am aussi programme spécial bu toll ci 23 milliards boo xam ne moom lañ nekk di réaliser mais programme boobu nag àggagul comme liggéey bi àggul yenn saa yi dina ñàkk mu am ay jafe-jafe yu am mais rafet nañu njot que fii ak diir ndax am na ci sax lu lu ci feeñaat ci liggéey bi loo xam ne dafa war a gën a nekk tawféex gën a nekk ndimbal ci population yi ndax bu njëkk bi dañ doon wax li ñu jógee Kër Ñang nga xam ne foofu lañ doon pomper ndox mi mu jëm fa bu jógee Kër Ñang ñu pompé ko mu jëm ci bassin wu Daaru Rahman bu jógee Daaru Rahman jaar ci euh, pof di nga xam tey mu am débordement bi mais léegi dañ jëm ci beneen vision bu gën a yaatu loolu ndax fii ak bu ñu toll nii ci pof di ak Kër Kàpp bi ñu ko xoolee ñetti kilomètres la tolloo donc ñu ne léegi est-ce que du ñu jël sax léegi def connexion bi mu dem Kër Kàpp ndax Kër Kàpp moo ëpp capacité Kër Kàpp aménagé nañu huit hectares yi mais à terme soixante hectares la war nekk donc loolu dinañu mun a dimbale ndox mi nu mu mun ti toll tey bassin boobu nga xam ne mooy bassin Kër Kaab dina ko mën a recueillir dina ko mën a contenir loolu nag yëgg maanaam vision bi moom am na tàmbali liggéey bi aussi am na ñuy espérer que rek fii ak nawet. napp bi moom euh, jafe-jafe la comme ni ñu koy xamee dafa am zone yoo xam ne fii euh, nab bi dafay affleurer. maanaam suuf si daf ndox mi dafa jege dafa jege suuf si loolu nag euh, am na loo xam ne jot nañ ko def ci jéego yi ndax si biir projet bii nga xam ne président da ko autorisé euh, sàkk ko ñu defal ko Touba am na 21 forage de rabattement yoo xam ne jot nañ ko ci réaliser loolu nag saafarawul territoire Touba tax Touba dëkk bu màgg la bu mag la aussi ndax ni mu toll léegi ci dayoo te dëkk la boo xam ne chaque jour day gën di màgg donc loolu euh, moom mooy li nga xam ne xëy na am na début de solution bu commencé goo am ci napp bi te am na aussi yeneen xalaat yoo xam ne ñu ngi koy xalaat pour fexe ba jafe-jafe ñoom ndax bëri na une partie de Touba boo xam ne nii si si fleuve Sine euh, ndax loolu euh, dex la woon boo xam ne nii dafa traversé lu bëri si si Touba loolu nag lu bëri ci gox bi loolu suuf si ndox mi nekkoon nañ ci suuf yi dina am jamono xëy na mu mu déy noonu la ñu ko waxee ci wolof waaye dex boobu noonu aussi dina am jamono mu yeewuwaat ndax Sénégal xam na sécheresse ci année dix yi mais bu ñu seetloo at yu mujj yi gis nañ ne dañoo tollaat ci jamono pluie yu grande pluie yi mooy pluviométrie bi yokk ndax dañ toll ci contexte boo xam ne ak changement climatique yi la nga xam ne moo daan am ci ay plus yu ñu daan gëj a gis ci ay juróom fukki at wala téeméeri at dañuy gis ne taw yu toll noonu dañuy ñëwaat loolu nag day indiwaat ay conséquences mais am na lu ñu ci tàmbalegum ci liggéey ndax amagum na déjà vingt for vingt et un forages de rabattement yu ñu ubbee commencé gum ñu am yaakaar rek yeneen yi nga xam ne aussi moo des dinañ nekk ci ñu yokk chantier yi euh, pour fexe ba yooyu yëpp ñu mun ci am saafara fii ak diir daal incha allah.